dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo woppi coronavirus mbaadu nag dafay bëgg naax saay ci àdduna bi li ñu nemmeeku mooy ci réewum Sénégal ak réew yu bari ci àdduna bi gis nañ ne wopp ji ma nga fay wàññeeku fu ci mel ni itali Espagne ak France yéenekaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal nañu fii ci réewum Sénégal li ñu fi nemmeeku daal mooy fan yi ñu génn lim bi ñu doon wax ne ñoo amee wopp ji wàññeeku na bu baax a baax ci ndaje mi nga xamante ni nag doon nañu ko amal mu nekk nag 73e assemblée mondiale de la santé ñu ko doon def ca Genève ñi nga xam ne nag ñooy waa Chine ñoom daat na ñuy wax ne lu toll si juróoma ci ay dana danañu ko daal di defar ngir nag dimbalee ko àdduna bi lu toll si ñaari milliards de dollars tamit yoo xam ne danañu ko daal di génne loolee lépp ngir nag woppi coronavirus ñu man ko saafara ci àdduna bi mu daal di jeex benn yoona ba tey ci biir journal bii di réew mi quotidien mu ñu xamal na ñu fii ci réewum Sénégal nag lu ëpp junni ci ay nit daat nañu koy faj ba mu wér mbaadu chloroquine bi moo fa jaar waaye nag lu toll si ñaar fukk ak juróom ñett ci ay nit daan nañuy faatu yéen kay gii di las mu ñu xamal nañu ni ki démb nag am na ñaari nit ñoo xam ne faatu nañ ci woppi coronavirus waaye nag lu toll ci fukk ak benn ci ay cas grave ñoo ngi tëdd ci bërëbu fajukaay yi lu toll ci junni ak ñeenti téeméer ñeent fukk ak benn ñoo xam ne jamono ji ñoo ngi leen di fàcc yéen gii di la turbine mu ñuy xamal nañu cas communautaire yi nag maanaam bu njëkk buñ ko mosa tudd ñëpp nag dañuy tiit ba maarale taal yi waaye nag léegi daal li ñu nemmeeku mooy askan wi faaleetuñu sax cas maanaam dañuy see mujjee bàyyee fayeku joxutuñ ko benn fula yéenekaay gi di Libération mu ñuy xamal ñu am na yenn gox yoo xamante ni daal woppi coronavirus ji bëri woon na fa lool doon fa jàbba jonge waaye nag lañu ñu nemeeku maanaam ma nga fay wàññeeku bu baax a baax fu ci mel ni Ndakaaru Touba Sédhiou Kaolack ak Kolda yéenekaay gi di Rewmi Quotidien mu ñu xamal ñu lu jëm ci wàllum woppi coronavirus ak nag milliards yi nga xamante ni moom lañ ci génne woon ngir nag jënd ci ak dund maanaam jox ko askan wi ba léegi ni daal lu toll ci 553 communes jotaguñ maanaam ci dund gi lancement bi amuloon nañ ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril journal bi ne Mansour Faye mi nga xamante ni moom lañ dénk wàllu woowu nag moom ni ko suba ci àllarba ji dina daal di janoo ak taskatu xabaar yi indi ci ay leeraange yéen kaay gi di grand place mu ñu xamal nañu Samba Ndiobène Kam mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum sàmm gi lu toll si ñett ci ay milliards la génne ngir nag génnee ko xontu jàppale ko nag éleveurs yi yéen kaay gi ko di jee ñu fekk fa docteur Aloyse Waly Diouf yi nga ni ñoo ngi wax ne waa institut ko daal di moom nag nee na loolee lu mën a nekk la waaye nag journal bi di Vox Populi waa Institut Pasteur la ñu xam le ñoom mosuñoo def ay manipulation mosuñoo jébbal waa ministère de la sante ay résultats yoo xamante ni maanaam manipulation daf caa daal di ama yéen a kaay gii di Sud Quotidien mu ñu xamal nañu Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne moom lañ dénk kaaraange réew mi ndax li muy def nag boole na ko ak xalaat ndax jamono ji nee na pare na ngir joxe ay autorisation waaye journal bi laaj mooy ku ñu jox ab autorisation ana lan moo lay yóbbu ci sa wuñ li nga xam ne mooy garage yi maanaam transport interurbain bi te nag ñëpp xam nañ ne sénégalais yu bare bari yoru ñu oto bu loolu passé kan moo koy wax nag ki ñu jox autorisation mu ñibbi ci ak njabootam kooku amul woppi coronavirus ji yéen kaay gii di Les Échos mu xëy di ñu xamal laa ñu nag club des investisseurs jamono ji daat nay tas tasar Abdourahmane Ndiaye moom sax daat nay tekk ndombal tànkama waaye nag mbir mi li ko waral daal maanaam mooy kuréel gii nga xamante ni dafa ëmb investisseurs yu Sénégal ñoom nag dañu doon jàppale ak li ci contrat bi dox digganteem ak Sénélec yéen kaay gi di source moom mu xëy di ñu xamal naa ñu ki nga xam ne nag dañu doon wax ne dañu ko fekk mu faatu ci ab foos ca Touba am na nag koo xam ne moom lañ njort ne moo def ñaaw téef gi kooke sax rakk la ci moom ay atam toll si juróom benn fukki at jamono ji ma ngi ci ab garde à vue yéen kaay gi de laas mu ñu xamal naa ñu gendarmerie ñoom nag daan nañu teg ay bandi ay sàmba surabali yoo xam ne dañu doon seetal xaalis maanaam dañu doon raxas xaalis blanchiment d'argent xaalis boobe nag bi ko xayma toll na si mille six cent trente neuf milliards maanaam lu jege deux mille yéen a kaay sunu lamb ñu fekk fa Bourkhane Wade moom nag la mu xamle nee na combat Balla Gaye booy ñaa Niang 2 demande sociale la lu munut a ñàkk la.